emplois comme ça comme ci communes yi d'ailleurs c'était souvent le cas maintenant on dit fonction publique locale mais comment vous pouvez transférer des des recrutements politiciens sans aucune référence euh, en, en des corps de l'État ce n'est pas possible loolu mënul nekk parce que aucune mairie ne pourra soutenir ça maintenant bu ñu trier nag dindi ñi nga xam ne ils respectent les critères su boobaa ñu pousse les maires et les présidents de conseil départemental à rentrer dans la fonction publique territorial mais mënoo ku ñëw rek jël sa militant ñu jël jël ba mu fees dell ba pare ñoo nañ leen dugal fonction publique locale c'est pas possible oui mais justement nous sommes d'accord là-dessus c'est pour vous dire simplement que war nañu liggéey ak les collectivité le ministre travaille avec d'ailleurs l'association des maires les maires eux-mêmes et les président de département mais comme ils se sont arrangés ba def ci benn loi lu ñu defal administration defal ko travailleur collectivité foofu la jafe-jafe bi amee or on peut pas transférer comme ça tout ce que l'État fait rek on le fait pour les communes mais yan ressources ak quelles ressources les communes ne sont pas là pour gérer seulement leur fonction publique sont la pour répondre aussi aux besoins des, des populations qui les ont élus faire du nettoiement, faire de l'éclairage, répondre au besoins élémentaire des population donc loolu yëpp nag mbir la moo xam ne li ma ci bëgg a wax rek boo gisee ma taxaw ci poñ boobu mooy dañu war a xam ne effort yi ñuy def dafa am limite objective dafa am limite. nous sommes un pays développement bu leen ko fàtte.